Sunugal 24 point net l'information à sa maa ngi lay ziar. ñu ngi lay yor ziar ba. Balla tey seen papa seen xarit dëddu dama lay jox sama micro rek nga wax lépp loo xam ci moom ak lépp lu nekk sa xol ak sa yéene ci moom ak li nga xamante ne tey moo nekk ci ginnaawam ak li ne ci kanam. waaw jëf euh, ñu ngi jaale àdduna yëpp di jaale Sénégal ndax euh, kenn ku nekk mën nga ko jaale sa bopp. ndax euh, suñu papa boo xamante ne bu jox nit cër la muy nga jur mu jur la mu ñaax laa jur muy mu xam la mu ñaax laa bañ a xam cër la mos a jox doomu aadama yi respecté doomu aadama yi foo ko fekk mooy kurusam waxtu julli yi ma xam ak di ko seede mooy li ma gis ci moom mooy waxtu du ko raw jaamu yàlla ak wax bu rafet te bu ko fi yàlla jëlee dañ koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla yërëm te xare ko àjjana yi gën a kawe ndax géejuwaay yëpp ñàkk nañu daanaka àdduna ñàkk nañu di ko jaale ñëpp di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yërëm te xare ko àjjana yi gën a kawe nekkoon na suñu papa ju baax nekkoon exemple tey ci géejawaay ndax day jubale xale yi di yedd xale yi di conseil xale kon bu génnee àdduna nag vraiment ñàkk nañu te ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm ko àjjana yi gën a kawe waaw euh, dañuy dégg ñu ne paa bi dafa lewet paa bi dafa yaru deful dara muy dara tey mu bàyyi fi njaboot lan ngay wax njabootam gi. waaw xam nga njabootam ñu ngi xëy di lekk di naan di dund mu bàyyi fi njaboot képp ko mën a jàppale da nga koy jàppale te yàlla tax ndax paa bi mu ngi sant yàlla. mosoo leen ko dégg muy jàmm dara wala nangam waaye doy na sant yàlla ndax gor la daa gore ba yàlla jëlee ko fi te it ay njaboot tamit noonu lay dundee njaboot gi suñu njaboot la ñu ñëpp ñoo ko bokk ñu mu ni mu ko juree njaboot gi ñun noonu la ñu juree ndax daanaka ñoo bokk lépp ndax paa bi xam naa ko baax daaw ñu nëbbante ci lu bëri dañuy waxtaan ci lu bëri kon vraiment ñu ngi ñaan yàlla ñu taxawu njaboot ki rek ndax njaboot moom njabootu ñëpp la waaw. jërëjëf